ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi yeesal santar suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat cim néegam su fiyenee jël benn bind bu aju ci diineem ñu koy wax fiq di ko sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim di la voix du musulman di nga xamee ne nii ndaw ñi nga xam ne français rek lañ jàng ku nekk ci ñoom waroon naa góorgóorlu am ko di ko di ko liir ñi ngi ci toll woon ci li ñuy tuddee almadatu salisa fi laariya ñi ngi ci jumlatu ahkam war a jàng fi laariya su dee ñi yool mool bu bees bi ñu ngi ci page 336 tey mooy fukkeelu fan ak juróom-ñett ci rabi ussaani sunu maam yi di ko tuddee rakki gàmmu muy tombeeg le 13 novembre ci 2022 su dee mbokk yi bokk nañu gis bind bi kon day wax ni fil aariya ci li nga xam ne mooy able taarifuha suñ la ko doon xamal al aariyatu lii di lebley day li lii di able day hiya shay'un yu'ta mooy mbir mu ñuy joxe liman yantafiu bihi ñeel ka kay jëriñoo zamanan ci benn waxtu suma yarudduhu gannaaw ba mu delloo ko boroom ka an yastaira muslimun mi ngi mel ne mu abboon ab julit min aaxar ci keneen qalaman yaktubu bihi mu àbb ci moom xalima bu muy binde aw sawban yalbisuhu walla yére bu muy sol summa yarudduhu gannaaw ba mu daal di ko koy delloo kon mbokk xam nañ ne doomu aadama yi seen jëflante dafa wuute kii mën naa ñëw na la may ma kii ñëw na la lebal ma waaye am ku ñëw na la abal ma mi ngi moonu abal ma lam la abal moom nga koy delloo allahuma lu dul bu doon borob xaalis duñ la wax nga delloo ko lu toll ni lu lu mel ne lam la joxoon waaye valeur ba nga koy delloo mu joxe ci misaal mi ngi mel ni ki abboon benn big daal di bind ci big bi loole lañuy gis mooy dana ci bind delloo ko na am du ñàkk loo xam ne nii dana wàññeeku ci big ba ndax jëfandikoo na ko ñu ngi mel ne it yére bi mu àbb sol yére bi ñu ngi noonu loole da ngay gis islaam dafa tëral loolu allahuma bokk na sant bu ñu war a sant suñu boroom mbokk li mu wax fii ci ab yére loo xam ne nii ci suñuy bàyyi rek waxuma suñuy maam waaye suñuy bàyyi rek da ngay gis ñoo xam ne nii suñu bëggaane génn dem fu sori amuñu yére bu ñu sol wallahi am na bàyyi bu ma jege lool kenn ci dëkkandoom ñëw na ab ko benn yére ci tukki bu mu waroon a def mu abal ko benn xaftaan waa ji ba mu demee ba ñëw toog ay fan waxul ci xaftaan bi dara borom xaftaan bi yónnee coom na ko waaw sama xaftaan bi nag mu ne ko xaftaan bi daal dëgg dëgg mënatuma koo delloo xanaa daal ni bay bañ jaay gerte loo ma koy mën a wecc ko nga wecc ko ma ko ndax amul lu mu sol xaftaan ba bu la am mu la àbb tey nag ñun suñu problème mooy nu ñuy def suñu yére waaw mi dëkk Dakar sa problème mooy yére yi noo koy def armal bi ñu roof ko roofo roofo roofo roof dama jëlele jigéen ñi ba dañuy gis góor goo xam ne am na lu jege téeméeri yére gis ngeen ala kulli xaal loolu mbokk mooy ak àbb léegi nag lan mooy atteem ci lislaam xukmuha al aariyatu mashruatun bi qawlihi taala lii di àbb day bokk na lu ñu yoonal ci wax ji yàlla wax wa taawanu ala albirri wa taqwa dee leen dimbileente ci njëkk ak ragal yàlla wa qawlihi taala wa yamnauna almaun suñu borom nee na bokk na màndargay ku gëmul bisu pénc kay xañaate la nga xam ne ay njëfanukaay la sa mbokk julit soxla ko àbb la ko nga bañ ca mi ngi gën a tumuranke suñ jamono yi nga xam ngeen ku la gën a jege ay taax rek moo la gën a tëju waaye yaakaar naa suñu mbokk Saalix Njaay yooyu nañ ko wataay demal yaay diw mu abal ma tame demal mu abal ma ab dëru demal mu abal ma lii di ab rato demal mu ab nangam kon loolu nit ñi am nga am sa dëkkandoo amu ko mu tege nga sox mu soxla ko nga wañ ko koo jox suñu borom mun a yam na unal maun loolu kenn du ko def wa bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci it wax ju yonente ba waxoon waxoon ko kii di safwan ibnu umayya bal aariyatun madmuuna déedéet safwan ndénkaane la bu ñuy garanti qaala zalika li safwan ibnu umayya waxoon na loolu kii di Safwan ibn Umayya lama staara minhu adraan adruan ba mu demee ba àbb ko lii di mbubb yu ñuy sol bu ñuy xeex ñu ngi noonu wa qaal Safwan na ko waaw gasban ya Muhammad ndax lii ak jëlug force la yow Muhammad mi ngi noonu ala kulli xaal suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ñi ko noonoo woon lool muy Safwaan ibnu Umayya ibnu Xalaf baayam ci noon yi gënoon a màgg la bokkoon moomoon Bilaal sonaloon ko ba Abubakar jënd ko ci moom su fitnaal julit ñi yàlla degool keroog xare Badr la ko Bilaal rey Safwaan boobu nekk moom it taral noonoom ci lislaam moom moo yónni woon Umayru ibnu Wahb keroog bañ toogee ca Kaaba ga di waxtaan fekk jóge nañ xare Badr rey nañ seeni baay ñii seeni doom ñii seeni nangam Umayru daal di ne tey dund gi day xamatuma dara lu ci neex maa ngi seede ne bu dul woon ak ay bor yu ma bañ a bàyyi ak sama njaboot gu sew gi danaa dem Madina rey Muhammad même bu ma ay saxaabaam di rey safwaan na ko bu dee bor yee danaa ko fay njaboot gi ne sa xel dal danaa leen gaa garanti mu daal di gàddu jaasi comme ñuy ca Madina histoire ba xaw na gudd waaye ci gàttal li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee fekk Omar a ko jëkk a gis daa di ne kii ni ma ko gisa doxul jàmm naam waa Màkka ñu ngi doon yónnee ay ndaw di jotu ci seen prisonniers yi ñu fa jàppoon Omar daal di koy dox a gannaaw poñe ko téye jaasi indi ko ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee yonent bi na ko Omar bàyyi ko mu bàyyi ko mu ne ko waa Safiyaan loolu indi mu ne ko xanaa wax ci suñu prisonniers yi ngeen jàpp mu ne ko déedéet déedéet Omeru la Omeru loolu indi mu ne ko xanaa suñu prisonniers yi rek mu ne ko déedéet da ngaa toog ak Safwan ibnu Umayya ca Kaaba ga ngeen wax fa nangam nangam nangam Umayr na ko ha ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah gis na ko tey nag liñ la daan weddi yépp ca xabaaru asamaan gëm naa ko lii baag Umayru dong ñoo toog di ko wax daal di toog dugg ci lislaam mais ba mu toogee dugg ci lislaam histoire ba gudd na keroog xare Badr ci atum ñaareel mu la woon ñu jóge fa dem léegi ba yonent bi ubbi Makka yu ñu ubbi sa Makka Safwaan yëg ko rek moom it daal di daw xam ne ne moom bu ñu ko jàppee dañ koy rey biñ ñëwee Makka umiru doonte ne Safwaan noonoon na ak moom ndax li mu dugg ci lislaam waaye jullit day yéene yéeféer jàmm te day ko yéene dugal ko ci lislaam gi mu nekk moo dégg ana ana Safwaan ñu ne ko daw na mu nga jëm boori Jidda mu daal di koy topp fekk ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko mu yàlla yónni dama bëggoon Safwaan nga nga baal ko rek mën na mu jëriñ yonent bi na ko baal naa ko jox ko benn kaalaam na ko demal nga ne ko baal naa ko omeru dem ba gis Safwaan daal di wax ak moom delloo si ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Safwaan ñëw ci yonent bi na ko waaw ah kii de nee na danga maa baal mu ne ko waaw baal naa la Safwaan kaay dugg ci lislaam mu ne ko déet man mënuguma dugg ci lislaam mënuguma dugg ci lislaam léegi daal léegi may ma ñaari weer ma toog xalaat ba xam yonent bi na ko may naa la ñeenti weer may naa la ñeenti weer nga toog nekkal jullit ñi keroog bi yonent bi ubbee Makka ba pare ca la waroon dem nag ko ca Taayif da war a daje Hawaazin yi Safwaan amoon na ay mbubb ñuy sol mbubb koŋ yonent bi alayhi salaam ñëw daal di ko koy àbb jox ma sa mbubb yooyee te la ko laaj ne na ko ah ndax yonent bi da nga ko bëgg a jël ci force wala da nga ma koy àbb rek mu ne ko dee dama la koy àbb àbb goo xam ne lu ci yàqu maa la koy fay gis ngeen moo tax mu mu wax loolu daa dina ko day doon luñ lay delloo safwaan boobee gis nañu ba yonent bi alayhi salaam xareg waa Xunayn ba gañe leen safwaan yéeféer la de mu woo ko ci benn xur lu bari ci ay giléem ay nag ay béy mu ne ko safwaan mu naa mu ne ko jële lii lépp may naa la ko xam naa safwaan caam la sant mu ne daal te te te te maa ngi seede ni ki ma gënoon a bañ koy dox ci kaw suuf mooy Muhammad waaye ba ma defalee teraanga boobu ki ma gën a bëgg ci kaw suuf mooy Muhammad gannaaw loolu ci la suuf bi dugg ci lislaam loolu la ñuy wax mu allafatu qulubuhum ni ñuy miñal seen xol ci lislaam lii lépp mbokk li tax ñu dugal ko ci dars bi rek muy wane ne yaatuwaayu dënn lislaam mooy islaam dafa yéene nit ñi jàmm par contre ni ko occidentaux yi diabolisé mooy jullit ji dañuy ñëw xeex nit ñi rey leen kaza wa kaza la mbokk loolu du jubluwaayu lislaam islam mooy naxanteeg nit ñi ba dugal leen ci biir lislaam gis ngeen kon loolu moom la ko yonent bi tontu na ko déedéet dañ la koy delloo bu dee dañuy da ngay jàng sa téere mu ne wa bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma min saaxibi ibil du am kenn koo xam ne da nga yor ay giléem wala baqar wala ay nag wala ganam wala ay gàtt xarak bay laa yu addi xaqaha te du joxe aq loole illa uqida laha yowma alqiyama lu dul dañ koy toogal yowma alqiyama bi qaain qarqarin ci pakk boo xam ne nii bu maasale bu talli tatu tatauhu zaatul zilfi bi zilfiha mu ñëw di ko jóg gi boroomi we ci seen weya wa tantahuhu zaatul qarni bi qaraniha mu koy jam borom béjjéen ci ay béjjéenam laysa fiha yawma idin jamaa'u wala maksuratul qarn keroog du ci am benn bàyyima boo xam ne amul ay béjjén wala ko béjjéenam di damm mu ne bu ko defee ba yonent bi alayhi salaam waxee loolu qul naa ya rasulullah wa ma xaquha ñu ne ko yu mu yàlla yónni luy aqam qaala itraaqu fahliha mu ne mooy ñu may tëb ga nga xam ne dana ko tëb lay góor ca ñoom la ñuy tëb yu jigéen ya wa iaaratu dalwiha ak able la nga xam ne mooy baak yañ leen di wëgge wa manixatuha ak joxe leen ñu leen di ratt jox joxe ko koo xam ne nii dana ko jël di ko ratt di jëfandikoo meew ma wa xalabiha alal ma ak it di ko ratt ca la nga xam ne nii moom mooy fa ñuy roote am ndox ba ñëpp fekke ko wa xamlun alayha fi sabilillah ak koo ca mën a waral nga waral ko ci yoonu yàlla mi ngi noonu mbokk xadis bi kon yonent bi alayhi salaam day wax ne amul kenn ku yàllay may ak jur ay giléem la wala nag la wala ay xar la te doo ci joxe ak xam lu dul yowmal qiyaama place bu tàlli lañ lay jël tëral la fa bu dee ne giléem ya ñu ñëw di la jog gi ca seen tànk ya di jàll fu mu jeexe ñu delloo si leen bu dee xar ya ak nag ya ñu ñëw di la mbëkk ci seen béjjén ya gis ngeen loolee ba ba yàlla di pare ci sab àtte saxaaba yi na ko waaw loolu àqam mooy lan mu ne mooy ngay abale ngir ku bëgg a tëblu sa giléem gu jigéen wala sa nag bu jigéen looleen moo tax ba da ëpp ci borom xam-xam yi dañuy tere jaay li nga xam ne mooy tëb bi bàyyi mooy di tëb te ji dañuy gis ay xari élevage yoo xam ne pour ñu tëbal la sa xar rek da nga joxe cent mille deux cent mille waaye loolu da ngay gis ne warul woon li ñu waroon daal ci indi am xaram nga tëbal ko mu jël dara jox la ko wala ab dund indi ko loolee islam du ko bañ am maa ngeen waxaale tëbu xar bi te mën na koo tëb ba pare affaire bu du jàpp loolu la islam di bañ gis ngeen gannaaw ba it la nga xam ne mooy maniixa dañ ko doon def bu jëkk te mooy nga am ay dëkkandoo na leen sama bëy yii de wala sama nag yi moom féete na naa leen soomi ko defee dañuy xëy di leen sàmm sàkku ngoon ñoom ñu ratt yóbbu seen kër gis ngeen gannaaw ba it mu ne su leen jur gi da nga leen di rattit nga koy ratte fi ñuy leen di nàndale ca teen ba ngiree fuq fuqaraaw yi buñ ca fekkee man ca am luñ ko jëfandikoo loolu mbokk la yonent bi alei salaam wax ci loolu bokk na ci it lan ca am ci képp ku ñoo bëgg nga may ko lum ca war parce que ku ñëw di la àbb ak gileem boo xam ne da cay tukkee wala da cay jihaate nga abal ko loolu léegi dañuy gis ne yonent bi sam ne ne lii mooy àqu yàlla may ak jur mi ngi noonu yow mi yor sa téere mu ne wa xukmuha al istihbaab amma nit ki àbb la nga abal ko loolu lañ ko sopp li qawlihi taala wa taawanu ala al birri wa taqwa ndax yàlla nee na day leen dimbileente ci njëkk ak ragal yàlla waqad takunu waajibatun ala man iturra ilayhi ca loolit léeg-léeg mu nekk nag farata ci koo xam ne dafa looru ci soxla la nga xam ne moom nga yor ma turita ma tura ilayhi muslim fi istiaadati cheyin dulit bu demee ba loru ci ab mbir min al ashiya ca mbir ya wa huwa anhu fi fi ghinan te fekk yow ma koy abal loole yow aajowoo ko woon sa mbokkum julit mi moom loru ci soxla ko su boobaa moom da nga koo war a abal loolu mi nga noonu da nga ko war a abal loolu wa axuhu l muslim fi xaajatin ilayhi su dee ne yow soxlawoo ko ci sa mbokkum julit aajowoo ci loolu kon ala kulli xaal bu ñu doon laaj luy attey àbb ci lislaam dañ naan ki lay àbb mbir te yow mbir mi aajowoo ko moom it da cay faj aajoom rek sopp nañ nga abal ko amaa nag moom bu yeggee ci ne lii boo ko ko joxul moom mën naa loro mel ni rek tey jii ci ñëwoon li ñuy tuddee assistance ci nit ñu nekk en danger nekk guddi feebar dëkk bi yow rek yaay fa am oto kaay dimbali mu yóbbu mu hôpital kaza wa kaza yooye da ngay gis ne ak lor la kon mu ne bu dee yow aajowoo ko jamono boobu ca moom loru na ci loolu su boobaa moom day nekk farata nga abal ko bu dul loolu nag moom lañ ko sopp boo ko abalee am tuyaaba soo ko abalul doo ci am benn bakkaar léegi ahkaamuha ana yan atte moo mën a aju ca la nga xam ne mooy ak able ahkaamul aariya hiya atte yi tege ci able mooy yii laa yu aaru illa shay'un mubaax kenn du leble mi ngi noonu laa yu aaru kenn du able lu dul loo xam ne dafa dagan a able laa tu aaru jaariyatun lil wata'i kenn du dem ci nit ne ko abal ma sa jaam bu jigéen bi njëree ma sëy ak moom bu dee jabara waxi noppi wala muslimun li xidmati kaafir kenn du able jaamu julit ngiree mu dem di liggéeyal koo xam ne nii ab yéeféer la wala tabibun non wala tayibun aw aw sawbin li muhrim wala tiibun lii nga xam ne mooy parfum wala yére kenn du ko abal koo xam ne daa armal ndax ki armal wurte parfum ki armal wurte sol yére is taawunu ala al ismi xaraamun ndax kat dimbilente ci loo xam ne nii bàkkaar la islam da ko xaraamal suñu borom mu ni wala taawanu ala al ismi wal udwan bu leen dimbilente ci bàkkaar ak noonu looloo tax xale yi ñëwoon ne la bay caam dañoo bëggoon nga abal ñu kër gi ñu baal fi dañoo bëggoon nga may ñu courant dañuy nangam nangam wala kii jóge fële ak ka ma war a njaalool la sëñ bi abal ma sa néeg bi ngir ma mën a def li may def loolee mbokk waruloo ko nangu heure boo ko nangoo rek yéen yéen a ba ko musiba ba si yéen ñaareel ba in ishtarata almuiru damaana li aariyatihi heure boo xamee ne kay leble daa sakku ci ne kat lii sama bor bi dañ koy doon sama li ma lay abal day doon loo xam ne ni du ñuy garanti ne damay boo ko yàqee dag may fay damanaha almustairu in atlafaha su boobaa da koy garanti ay delloo valeur am kaka abboon bu dee ne da ko yàq li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al muslimuuna ala shurutihim ndax yonent bi kat moo la woon judi di ñi ngi ci seeni charte wa in lam yashtarit wa tulifat bi duni taaddin wala tafrit su dee ne nag ba ñuy abalente charte wuñ ci dara daa ab rek mu abal ko ko lam ko abal yàqu ca waajaka ab jiggiwu ci dayoo gàtteñ lu wulit ngir sàmm ko fala yajibu damaan su boobaa du nekk farata ci waaji di ko garantir walakinahu yustahabu damaanuha allahuma lu dul sopp nañu nag ñu garanti ko may daa di koy delloo lam meloon li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li ihda nisaihi ndax lu mel noonu la yonent bi waxoon kenn ci ay soxnaam te mooy yaay Aïcha wa qad kasarat aniyata taam fekk tojoon na li nga xam ne mooy ndabal ñam la yonent bi ne ko taamun bi taam ne ko ñam bu mel ne ñam bi wa inaun bi ina ak ndab bu mel ne ndab bi mi ngi noonu wa in talafat bi taaddun aw tafrit amma nag bu dee ne tulifat lii di ndab ba dafa yàqu ci jéggi dayoo boo xam ne waa di moo ci jéggi dayoo wala moo sàgg ne lañ ko abaloon taxawu ci dañ ca war a taxawee damanat bi misliha aw qaymatiha day fay garanti indi lu mel noonu wala lu to lu tol noonu ci valeur am li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam alal yaddi ma aqasat xatta tuaddiyahu yonent bi nee na bépp loxo day nekk ci moom responsabilité lam jël ba baa mu koy delloo mbokk ci gàttal day wax fii ne waa ji ñëw di abale lay abal ab oto la lay abalam ab machine am la lay abalam lu mu mën a doon su ko neexee mu ne ah maa ngi la ko abal de waaye lu ci yàqu day dag may fay de loolu bu ko neexee mu charto su boobaa lu ca yàqu na doon waa ji moo ko teg teyu ko day fay beneen bi waa ji daa ñëw rek àbb la nga jël ko jox ko lu mu mën a doon kër laag oto laag lu mu mën a doon àbb na la nga jox ko bañ demee mbir ma am yàqute gu ca am su boobaa dañuy seet su dee ne moom moo sàggane mbir ma ba mbir ma yàqu bu la neexee na ko fay ma mais bu dee sàgganewu ko mooy nañuy jàppe mbir jàppe na ko noona yàlla ñëwee ko mbiram su boobaa amoo droit di ko fayee ko amma moom mi abba nag te yàq alali jàmbur mu wëlbati ko fay ko loolee moom da ngay gis sopp nañ ko ci moom mi ngi noonu mu joxe ci di benn misaal te li waraloon lii mooy jigéen nag moroomu jigéenam ñu ne yonente bi alayhi salaam dafa aaye ci yaay Aïcha kii di Zeynab bintu Jaash togg benn ndab benn plat jox ko benn surgaam da ko demal joxal ma ko yonente bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee rek Aïcha ak fiiram fil bool bi bool bi na tasar toj yonente bi alayhi salaam bu doon bilal tam day jóg tëggu comme fees waaye daa jóg toog rek dajalewaat bool bi na ko nag fexeel ba indi bool bi mel nii def ci ñam wu mel nii gis ngeen fexeel bi na bool bi mel nii ci def ci ñam wu mel nii loolee kon moo ko yàq kon da koo war a fay gis ngeen loolu mbokk mooy mbir bi ñetteel bi yow mi yor sab téere alal mustair maunata al aariya inda raddiha dana war ka abboon la nga xam ne mooy frais ya tege ci lam abb heure bu koy delloo ka an kaanat la tuxmalu illa bi xaamil su dee ne nekkoon na kenn du ko mën a yóbbu lu dul aji ku ko yenu aw bi ujrati sayaara wala ci payug oto masalan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ala al yaddi ma axasat xatta tu ay tuaddiyahu mu ne ki nga xam ne dafa àbb benn mbir heure buy delloo la mu àbb frais ya nekk ca delloo ko yépp moom moo koy gàddu ndax la yonent bi alei salaam waxoon ni nit ki lem jël ci loxoom moo koy garanti bu baax mu koy delloo su doon mbir ma daal laaj frais de transport ak yu deme noonu yow yaa koy gàddu mu ngi noonu tey jii xaw dañuy mën a wax lu mel noonu soo demoon tey jii ci benn waay nga àbb ko masalan cent mille francs mu abal la cent mille francs soo koy fay da nga yëkkati cent mille francs jox ko mais tey bu doon da nga koy yónnee ci réseaux sociaux yi dégal réseau yi nga xam ne moom de transfert yi su boobaa cent mille francs frais yi muy war a àndal yow yaa koy gàddu ngiree moom mu jot cent mille francs kon lu mel noonu lay wax ci wàllu googee yow mi yor sa téere mu ne ci ñeen ci ñeenteel bi laa yajuusu lil musta'ir an yu'ajjira masta'aara du dagan ci ki nga xam ne daa àbb mbir wëlbatiku di ko luye keneen otolaam kër laam toll la amma iaaratuhu bu dee ne nag moom mu dem abal ko keneen fala ba's loolu moom dara néewu ci in kaana yataxaqaqu ridal muiri lahu wa ila fala su dee wóor na ko ne man kat kii ma abal lii keneen ki ma ko bëgg a abal su ko yëgee it du ko def problème su boobaa dañuy gis ni amul benn lu ñuy tere ci loolu barakallah amul lu ñuy tere ci loolu masalan waa ji ñëwoon nga àbb ko benn téere mu abal la téere bi nga liir ko ba pare sa benn mbokk ne abal ma nga abal ko ko parce que te yëg nga ni te di borom téere ba bu ko yëgee du ko naqari loolu dara néewu ci loolu la ñuy wax ci lépp lu mën a doon na amma boo ci sikk sakka sax waroo ko def bu dee ne juróomeel bi in aara xaitan di wadi xashabin masalan heure boo abalee benn miir wala benn lu ñuy ñage nga abal ko koo xam ne da caa teg benn bantam ngiri la muy jëfandikoo fala yajuuzu an yarjia fi aariyatihi xatta yasquta aljidaar su boobaa amoo droit di nangu loolu lu dul ni miir ba moo dem ba daanul boppam te loolu bu dee dëkk taax yi dafay jafe am waaye danañ am ci àll bi mooy sa miiru fi mu yem nii keneen ki soxla moom jël ay piem teg ko ci sa ko miir tari defar ab néeg wala defar ak gétt wala lu mu mën a doon loolee bu dee yaa ko ko abal am wuroo ca nekk di ci dellu gannaaw mu ne wa kaza man aara ardan li zaraa li ziraa képp koo xam ne nii dafa able suuf ngir mbay fala yarji'u hatta yuhsada zar'u ki nga xam ne nii dafa able ab tool abal ma sa tool bi waaye ma bay ci sama gerte gi sama dugub ji nga abal ko tool bi amoo droit di nanguwaat tool bi lu dul mbay ma dafa ñor ba waa ji góob tool ba lama fi dalika min al idrar bil muslim wa huwa haram ndax boo ko nangoo ca mbay ma pareegul yaa ngi koy lor ci loolu dafa haram juróom-benneel bi ci àtte yi man aara aariyatan ila ajal képp koo xam ni dafa able lu ñuy able ba ci ab dig yustahabu lahu an la yatluba raddaha illa ba'da nihayati al ajal dañuy bëgg ci moom ne ko daal bul nekk mukk di sakku ñu delloo la la nga xam ne moom nga able woon lu dul dig ba dafa jot képp koo abal ngeen waxante dig dig boobee tànk yegg seegul amoo droit wala soppuñu nga dem ci moom naan ko delloo ma la nga xam ne nii dama la ko abaloon loolu mbokk kon dañuy gis ni moo aju ci wàllu li nga xam ne moom mooy abale googe lim ci teg mooy naka lañ koy bindee liñ ci wax rek moom la ñuy wax ca la nga xamee ne nii moom mooy jiitu woon ca bind yi ca tege loolu moom jarul ñuy nekk di ko jàng naam seen waxtu nodd bi ñaata moo ci des ah avant ñuy nodd naam mais ndax amul koo xam ne nii dafa mën laaj bu jëm ci able gi avant ñuy jël beneen bind bi ci topp su amul ñu doog a jël bind bi ba loolee mat waaye ku laaj lu jëm ci able gi non ci ci mu ne waaw kon xam naa ci seen mool yi mool yi ci ci ci mool yi la bokkul loo loo loo loolu la indi ñu ko fi seen téere bi am na ci ah waaw waaw parce que même téere yi bees yi amu ci xëy na loolu ci traduction bi la am waaw bismillah waaw ah tëbb xar mooy nga indi xar mu jigéen bala ko xar bu góor ngiree mu tëb ko ngiree mu am doom pour mu am doom waaw lool lool lool loolu la ñuy wax loolu ne mën na jàpp mën na bañ a jàpp looloo tax ñuy bañ ñu koy jaay naam waaw naam waaw bisimilah lépp lu ñuy jëfandikoo mënees na ko able lépp lu ñuy jëfandikoo mënees na ko able lu dul loo xam ne boo ko ablee day jur lu xaraam mas comme exemple bi mu la ci jox ne yoo xam ne boo ko abalee moom boo ko jëfandikoo day xaraam ci moom loolee doo ko def waaye bu dee njëfandikaay yi ñuy jëfandikoo noonu moo tax suñu borom wax maa un li ñuy jëfandikoo li ñuy war ak li ñuy dëkkee ak li ñuy bayee yooyu yëpp mënees na koo able xanaa daal la nga xam ne moom la cay génni mooy nga am sa jaam bu jigéen boo xam ne yow am nga droit di ànd ak moom ci sharia nga abal ko keneen mu ànd ak moom wala li nga xam ne mooy sa soxna nga dem di ko abal keneen te loolu am na ñu koy def waaye su boobaa dafay xaraam yow dagan na ci yow mais day xaraam ci moom dañuy wax daal mooy lépp loo xam ne matériel la ay ak i ay dëkkuwaay ak ay tool ak looyi moom mënees na koo abalente ci suñu biir ñu ngi noonu dara nekku ci doon waaw waaw waaw ala kulli xaal képp koo xamee ni da ngaa ragal ci moom ne lii muy jël ci man da koy lor da da caa jublu lor amoo droit di ko ko abal bu dee jaayit amoo droit di ko ko jaay loolu moo tax ba dañuy wax ni nit ki nga xam ne dañ koo xam ñu ngi nekk ci biirug noono jóge fële aku meram ñëw na jaay ma jaasi amoo droit di ko ko jaay naka noonu itamit bu dee fetal nit ki mën naa nekk ci circonstance yoo xam ne ni mënees na koo jël fetal bu dee lam cay dox lu baax la day rëbbi wala day nangam day nangam amma di ko jox abal fetal ci jamono yi ak ak noonu gu mën a def musiba loolu kenn du ko def li nga xam ne daal mooy lépp lu ñuy jëfandikoo am nañ droit di ko able lu dul able goo xam ne dafay yóbbu ci loo xam ne ni lu xaraam la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw mu ne li muy wax noonu.
waaw li sama arrivé ñaari xale dañu leen xeex keneen ki dëw ak vitesse ñëw ci moom ne jaay ma faabo parce que tey moom ne bu ko jaay day xeex.
ah waaw waaw waaw loolu waaw naam loolu day loolu loolu loolu naam naam naam effectivement loolu day day day day day am quoi waaw hmm? waaw ala kulli xaal su dee ne waaw mbokk yi mën a doon laaj waaw ki nga xam ne koo xam ne day àbb ca ca ca du delloo lañ waxoon ca bor ba rek la ñuy wax ci ab léegi bu dee wóor na la ne kii lu mu àbb du ko delloo ku mel noonu bu la àbbee bu la neexee nga bañ bañ ko ko def am na ci yoo xam ne nii sax kenn ki ñu wax dañuy doggoon loxoom ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom benn jigéen la lu mu daan def day ñëw ci kenn ku jigéen wii tëg yow àbb la masalan chaîne or nga abal ko chaîne or mu dem tëdd naxasaale soo ko waxee ana la ma la abal mun a man musuma laa abal musuma musuma laa àbb ba mu demee nag ba nga xamee ne nii gis nañu ne jàpp nañ ko ci jëf ju mel noonu loolu moo taxoon ñu dagg loxoom ndax loolu genre sàcc la boo xam ne sàcc bu bon la ndax yow kii wéet nga ak moom jël na la jox la valeur bu am solo nga dem làq ko ci béréb ba pare ne musoo ko ko àbb loolee gis nañ ni kon loolu la mooy daal képp koo xam ne ragal nga ni soo ko abalee soo ko lebelee mu indi ca la nga xamee ne nii mooy ak jalgati ku mel noonu amoo droit wala am nga droit ci bañ ko ko lebal wala am nga droit ci bañ ko ko abal te it doomu aadama yi niñ wuutee noonu la seen mbaax wuutee seen mbon wuutee gis naa benn ci mbokk boo xam ne xam naa ko bu baax yàlla dogal na faatu na yàlla na ko yàlla yërëm am na benn kër gu mu am fii ci Malika woo benn góor abal ko kër gi tabax ko abal ko kër gi góor ga dëkk fa lu yàgg yàgg mu toog ñëw na ko ah góor gi de xam naa ne xam naa fii dox ko dele bu sori daal da ko daal kër gi daal dama koo soxla mu ne ko kër gan mu ne ko sama kër gi mu ne ko noo kër gi maa ko moom ñu yéeg wàcc yow mu ne kër gi maa ko moom waa ji coono bi mu ci daj pour de tat kër gi kenn xamul nu mu toll lu ne waa ji def na ko xoolal mbaadoo léegi gis ngeen kon nga xam ne nit ñi yemuñu loolu nit ñi yemuñu ala kulli xaal daal képp koo ragal ne su ma ko abalee la ma ko abal da koy yàq am nga droit bañ wallahu subhanahu wa taala alam xam naa ni bàyyi bilal noddal nga rek incha allah yoo xam ne day génn dars bi gannaaw ba ñu pare ci des dars bi ku am loo xam ne day dugg ci biir dars bi xayrun ku ko amul it fekk ñu am yeneen question ñu tontu ci loolu balaa waxtu julli bi di jot waaw su amul it xam naa ni dañuy mujj jëlaat waaw bismillah naam naam waaleykum salaam naam wala kulli xaal ndax laal jigéen dana yàq njàpp loolee borom xam-xam yi dañ cee am ixtilaaf dañ cee am ixtilaaf am na ca ñoo xam ne dañu ne heure boo laalee jigéen sa njàpp day toj am na ci ñu jàpp ne laal googee ñuy wax du laalu yaram yu laalante waaye mooy laalu sëy kon ki jàppoon ba pare jaxasoog jigéen ci kaw lal tant que mesure yu génnul ci moom wala menu yu génnul ci moom loolee njàppam nekkul lu toj ñu la ci seeni tegtal bokk na lu ci gën a digg doomu mooy lu mel ne mazhab Malik ñoom dañ ne laal jigéen bi nga xam ne moo cay toj njàpp mooy kay jublu laal jigéen ngir bànneexu ca na doon am na ca bànneex wala amu ca waaye loolu moo doon jubluwaayam wala koo xam ne dafa laalanteeg jigéen loo xam ne tayu ko waaye laalante gam laalante yëg na ca la nga xam ne mooy bànneex boo xam ne yëngal na yaramam laal googu la ñuy wax ne su boobaa day yàq njàpp amma bu dee ne yow jubluwoo ci laal gi bànneex bi ngeen laalante it yëgoo ca benn bànneex su boobaa loolu nekkul lu yàq sa njàpp bu ñu xoolee ci waxi borom xam-xam yi daal loolu moo ci nekk lu gën a digg doomu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam bokk na lu ñu cay waxit mooy jàngale fiq mooy li gën a jafe ci njàngale yi sunu maam yi njaayin yi suñu masaan jàngal seen demal alquran ba da dul jàng jàng fiq dañ ko yóbbu ci sëñ càm mu jàngul ko fiq ndax ndax lu sensible la bokk na ci loo xam ne nii dañ ñu koy laaj mooy góor demoon tey ba li nga xam ne mooy awaraam daal di jóg taxaw mbokk loolu bu dee ne ay xalaat rek ko taxawal loolee yàqul sa njàpp dara amma bu doon da nga laal jigéen ba awra ba taxaw su boobaa dañ naan loolu day yàq sa njàpp bu ñu sukkandikoo ci mazhab Maalik loolu la ñuy wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw bu dee bu dee ñu ngi ci jublu sa soxna bu dee ci jubluwaay bi sakku bànneex waaye ku dul sa soxna it mën na laa laal te ji ku xam sunu transport yi ni muy demee bari na lool góor gu taxaw ci kaar jigéen ñëw tafu ko wala yu deme noonu amma bu dee ne jublu ci bànneex moom kooku ci soxna dong la war a doon képp koo xam ne jublu nga bànneex ci soxna bu dul sa soxna kooku waxatuñu njàpp mu toj ak njàpp mu njàpp mu yàgg a toj yonent bi alei salaam nee na nit ki demoon ñu jam ko pont ci boppam ba pont ba bëtt ba yegg moo gën ci moom muy jël yaramam di ko laal yaram bi beneen jigéen looloo tax ba mbokk jullit xam leen ne nuyoo góor ak jigéen dafa xaram nuyoo góor ak jigéen dafa xaram loolu ñu bàyyi ci xel bu baax képp koo xam ne du sa maxaram mooy sëy aram na seen diggante daganul ngeen di roofalante di nuyoonte loolee daganul nañ ci bàyyi xel bu baax wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam ah waaw jigéen su dee ne da nga dafa nga julli nga nga ji nga nga juum laka lislaam sant mooy mu fette ko la wala mu tapp poojam xamal ne da ngaa juum su dee ne comprendre nga nga dellu gannaaw masalan tey jii julli nga ñaari rakka au lieu nga toog nga jóg taxaw soxna si ne la nii war ngaa comprendre ne ah kon dama juum amma bu dee com waa ji comprendreul soxna si da koy wax ne ko da ngaa juum bu doon te ne ne góor la moom subhanallah lay wax imam heure bu juumee da nga naan subhanallah su comprendre xëyru su comprendre nga ne ko imam benn sujud nga sujud masalan mi ngi noonu wala boog imam yaa ngi jëm ci juróomi lu rakka loolee kon mi ngi noonu góor day sabbal jigéen day day fettaxu wala mu daal di tàpp suñu comprendre xëyru suñu comprendre ñu doog a wax wallahu subhanahu wa taala alam naam am ala kulli xaal bindi bu dene laaj yi jeex na ko incha allah ñu doy loo loolu ñaan yàlla subhanahu wa taala barkeelul ñu fi naam bépp terrain boo xam ne yaa ko moom ba nga koy jënd yow jubluwoo ca woon la nga xam ne mooy commerce terrain boobu boo ko jaayee zakat waru ca fokk xaalis ba day dem ba am ci yow at ñu koy doog a génne zakat ki nga xam ne moom la ñuy wax zakat mooy ki nga xam ne moom day jënd ay terrain di jaay xaalisam du rouler comme commerçant bi ko mel nii la ñuy wax ne terrain yi ngay jënd disponible ko nga xam ne tey boo gisoon njëg jaay ko kooke dañuy évaluer di génne ay zakatam donte ne bokk na li gën a compliqué mooy zakatu terrain waaye ci la gën a digg doomu loolu lañ cey wax amma bu dee terrain bi yaa ko moomoon wala ba nga koy jëndi da nga koo jëndoon rek pour ne mu nekk sa terrain déglu woo ci ne da nga koy jaay yaa ngi koy def ab denc ku mel noonu da ngay gis ne gis boo décidé ba jaay ko it xaalis ba nga ca am tant que matul zaka tant que amul at ci yow zakat du ca war mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam na ah même bu ci jëbloo denc xaalis zakat du war ci loolu la nga xam ne moom la ñu wax mooy ba ngay jënd cosaanu terrain ba da nga koo jënd léegi pour wane ne su ma gisee léegi terrain jaay ko léegi nga xam ne da nga koo jàpp rek comme xar mi ngay jënd di ko jaay loolee mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ñii waaw ala kulli xaal damaa jàpp ne jullit moom day ñàkk a xam day day day day day ñàkk a xam ci ne ndax zakat war na ma waruma waaye koo xam ne xam na ne zakat war na ko ba pare mu bañ koo génnee kooke moo ki julli jot mu bañ a julli ñoo yem kon xamal ne ni lor lu dul loo xam ne ni mooy boppam gannaaw ba it jurit dafa war a gëm ne alal ji nga génn zakat moo gën alal jiñ génnewul zakat loolee la chàkk fii kii am na un million lan la ko ci lislaam laaj vingt cinq mille vingt cinq mille yooyu ci génn da ngay gis ne kee bañ a génn zakatam waajee la muy dese moo koy gën a barkeel téeméeri yoon ca yàlla jël waala looloo tax képp koo xam ne nii da nga def lu baax sa bopp nga koy defal borom bi ne ne ba man yabxal fa innama yabxal an nafsi ki nay ci boppam rek lay dellu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain